rusloo jàppale ne élection bi jeex na tey dootuma campagne bàyyi na campagne bi fii laa ko dóore avant ma ñëw dëkk bi daw na génn dëkk bi fii laa ko dóore